donc kon man mënuma comprendre ñu ne réewum Serigne Touba réewum jàngu bi réewum Bañes Alaaji Malick ñu ne léegi ñun góor jigéen war na fi mën a am war na fi mën a nekk quoi dafi am bureau parce que genre ministère du genre boobu. Hmm. boo demee boo demee ministère ci ministère ba boo xamante ni mooy occuper tout ce qui est genre. Ah, la femme de la famille et du genre kay du genre kay ne am mu nekk ay bureau yoo ni ñu baree baree baree bari dafa am benn benn dañoo wax non loolu mënul nekk donc Sénégal góor jigéen ñoo mënul nekk mais ba mu nekk nag. te Macky Sall def na ko bi fi bi fi Obama ñëwee dafa ni ko ñun ne sommes pas encore prêts gars yi ils étaient contents ñaan ñi naan diplomatie la ni mu waxee mais man dama ni kii daf ñu yàpp parce que Macky Sall dafa toog jàkkaarloo Sénégalais yi ne képp kuy muuru burka du ñu am benn tolérance yow. Mm-hmm. voile intégral yi. Mm-hmm. léegi ñu ne du am benn tolérance yi ñuy muuru burka léegi am na tolérance yu góor ci ku koy wax góor jigéen quoi. Mm-hmm. cest à loolu moo wax ko ma ne mais est-ce que yéen a ngi ma ne la ah man pare gu ma mooy yow mën nga maa xaar ma pare. dinañ dem dina mos sa pare. mais soo ne ma man Karim dem ma. dem ma mais. dama dem bàyyi la ferme bi sax dafa am loo xam ne ñun Sénégal dañ ci ferme. léegi nag gis nañ ay interview yu mu def si ay plateau télé yoo xam ne wax na wax na fu nekk ci plateau yu bari expliqué ne ne carrément euh, les homosexuels n'auront pas de problème avec avec avec avec euh, le gouvernement. Mm-hmm. en tout pas avec le gouvernement. léegi journaliste bi laaj ko avec le peuple mu ne nag ñun le peuple mais ñun ñooy ñoo am suñu fulaak suñu fayda rek xam ni la Sénégal yëpp xam ne Macky Sall dafa créé ministère góor jigéen ci dëkk bi mhm. li muy wax nii du dëgg ay bluff la ma Ndeye Saly Diop Dieng moo ko créé jël ay ministre yoo xam ne dañuy défendre góor jigéen mu def le ministre récemment bu doon teg euh, ministre bi euh, nu mu tudd euh, baa bi mhm. waay waay waay sama paa Fatma Touré bu doon teg donc fa damay fàtte tur bi quoi. Mhm. waaw bu doon teg euh, y' a un député là un suñu pas député bi. Mhm. moom moo moom moo ñu dimbali ba ba ba dañu doon bi ñuy dugal euh, criminalisé bi ñuy criminalisé viol. Mhm. ñuy criminalisé viol euh, paa bi moo def ba ba moom moo gis ci biir kii bi ñuy criminalisé viol ñuy jéem a sërxalaale. ok pour li pour légaliser homosexualité. waay si beneen forme. moom moo ko teel a gis. ñu ko gisee mu aalu kaas. Mamadou Lamine Diallo Mamadou Lamine Diallo merci. Mamadou Lamine Diallo bu tekki. tekki waaw ah, Pa Pao moo si jàpp. pas boobu moo si taxaw sinon kon heure fekk nañu légaliser homosexuel bi yàgg pour te dire au moins am na ay députés yoo xam ne ñoom ñi bàyyi xel quoi texte ñi daal moom moo ko gis ne mais lii c'est grave viol lu mu jotee ak lii nii affaire homosexuel ci la ci taxaw ñu daal di def kii ba ñoom ñu retiré waat ko Abdou Mbow daal dem retiré ko donc yooyu yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni je pense que ni loo am la te Sénégal dañ ko war a xam te effectivement est-ce que diggante boobu noonu. état bi war na fi mën a dellu ginnaaw. supprimer wu ministère yi wu yooyu yëpp accepté à ah, wu loolu yëpp ba pare nga ni criminaliser homosexuel yomb na mu ngi di def ay loi d'habilitation biir assemblée nationale ñu voté ko ko taf-taf. mi mi doon voté ay loi pour ay mun am hmm. kii ay cour faak yëpp lu ko neex hmm. lu tax mënul taf taf ñu defal ko ñu criminaliser homosexualité comme ni ko Cameroun defee justement euh, Karim hmm. parce que foofu keroog ko waxtaan waxtaan nañ si ak euh, professeur Cheikh Oumar Diagne ñu ngi koy nuyu déjà moom itam muy doon rafetlu suñu invitation bi ñu ko bi ñu ko xamalee ni yow yaa fi ñëw donc dafa am lu mu soulever mooy que ni bi ngeen defee ñoom seen seen euh, en tout cas waa sàmm jikko yi bu ñu demee ci kër xalif généraux yi. ba ñu signé pétition bi. député yi taxaw société civile ordre des médecins ñëpp taxaw ni bëgguñu góor jigéen. dañu gis que ni fi mu yéexee mooy côté parlement bi tey lan la ci assemblée wara taxaw pour que effectivement ni nga ko waxee nii ñu taxañ affaire bi def ko de façon pragmatique pour que Sénégal taxaw ni day criminaliser. Euh, soo bëggee dégg dégg Macky Sall pro homo la. pro homo maanaam suñu mbokk yi góor jigéen la. Karim wax bi ci programme la bokk loolu dëgg la xam nga wax ëppul j'ai rien dit de mal day liggéey les zones sexuelles benn góor jigéen bu mag bu tudd Jean-Luc Moreau moo tweeté wax carrément bind ci texte ne Macky Sall mu ne Sénégal bokk na ci dëkk yi ëpp bu ñu bluffaat bu ñu nag mën nañu nax peut-être mais léegi gars yi sëriñ si général des mourides intellectuel la dafa xam nu mu demee ñoom dañuy xam quoi moo tax gis nga dañ fay dem expliquer leen mu nañu li Serigne Touba doon xeex jamono yi ba léegi moo fi nekk pour wax ne ñoom léegi nit ñi xam nañ léegi ñëpp informé via les réseaux su ma nee la Macky Sall pro ko teg mm-hmm. foo ko teg parce que lépp luy am jàmm Sénégal Macky Sall mi ngi ciy dox mais pas officiellement mais officieusement ñemewul jël engagement c'est-à-dire engagement quoi taxaw jël say engagement quoi taxaw yow président nga dañ la fal sa askan ñoo la fal seen kàddu ko yor nga taxaw ne ñun jigéen du fi am baat ñun kat assemblée nationale comme ñun am nañ fa majorité bon nañ criminaliser homosexualité ñu daal donc ministère góor jigéen ministère du genre genre muy góor jigéen loolu doyul xalaatoon nga Sénégal àdduna dox dox dox ba mu am ministère du góor jigéen. donc yooyu soo koy wax nag Sénégalais duñ ko gëm. dañ naan non mais lu am la te lu am la tu wér te wóor la lu nekk la lu existé la te bu tal ba tay ba sànq boo jàppee góor jigéen léegi ni bu demee bu ko ko jugee. ñu demee ñu tëddee génne ko. Mhm. ñoo koy génne justice bi bañ lay jàpp tëj la bu ñu la tëjee quelque weer góor jigéen ñi jàppoon yëpp tëj bàyyi nañ la dañ ne pare ñu jox la passeport nga dem jox ay passeport nga daw génn dem dem feneen ak feneen te sa peine doo ko tëdd te dañ lay jàpp ci góor jigéen mi ngi fii fes fi jàll donc dañ koy wax da gis da ngay gis professeur Cheikh Omar Diagne sax mu wax naan euh, gouvernement Macky Sall bu bëri ay góor jigéen loolu mooy laas donc bon je pense que ñun li ñu mën def rek mooy euh, wan leen ni ñun góor jigéen man comme li ma yàgg a wax wàllum góor jigéen li ma ci wax dafa simple mooy fekk ñu ngi dund di nooy góor jigéen du am paas Sénégal boo déggee ñu ne góor jigéen yaa ngi sëy ca nañ ko ñaan nañ ko defal douze xalaas loolu moom maa la ko wax moom. góor jigéen mi dox Sénégal mooy ñun ay ixlaas ñu ñu defal. na ko yaa na ko non yaa. loolu moom loolu parce que. non ñun man loolu man du ma ko teewee sama génération man sama dund du ma ko teewee man. loolu te loolu dama bëgg Sénégal yi xam ko sax yoo xam nga ñu nekk ci ay kii politique ak yoo loolu ça dépasse la politique loolu affaire politique quoi affaire nit la affaire wor Serigne Touba wor El Hadj Malick wor Baye Niass wor jàmb bi lor say doom parce que ñoom commencé nañ déjà gis nga xale yi tàngal yi ñuy jaay kuréelu LGBT yi si nekk léegi bal yi ñu ngi xam nga ñoom ñu nekk góor nekk góor jigéen léegi léegi foofu la ñuy commencé à bas âge di di dugal imprégné pour mu jóg moo tax il par rapport ak juge bi. dama koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. Mhm. yal na ko yàlla yërëm xare ko àjjana euh, dama gis mooy laa sànq ma ne Macky Sall la sànq moom laa doon wax mu dagg ma. Mhm. c'est-à-dire yi sénégalais ñoo dem ba seen xol yi yàqu. parce xam nga olof dafa ne dëkkandoo day wàlle ba foofu ñuy bañ a yegg c'est-à-dire dem ba yow ufet da lay c'est que nit bu bonee boo dëkkee ak moom bu yàggee da dem ba da ngay mujjee bon même soo bëggee baax ba da lay yóbbu foo xam boo wattuwul rek da prophète bi rek mu mën a salaam nit sotti ko ay butitu mbaam affaire yooyu après moom mu ñëw di yow lool kari boobu xeex ak yow mu mel ni sax gis nañ kii di euh, Abdoul mbay mhm. moom tamit mu defoon benn post euh, mu tweeté woon également wax ci loolu noonu. ba mhm. pare effacé waat ko mu doon euh, post boo xamante ni day xaw a méngoo tuuti ak li Mouhamed wax. ci sénégalais yi waa seen réaction. mais bi ma gisee bi ma gisee man ci réseaux sociaux yi. Mhm. ñiy ciblé di wax naan dafa kii dafa mais ça devient dangereux. ñun ñu ngi ñuy yóbbu ci animosité boo xamante ni mais nañ dellu si waat parce que ñun on est des croyants. on est des musulmans et lu ñu gëm est que ñun suñu taxawaay war na nekk lii parce que ma gis que naan non duma ko ñaanal. ok doo dëgg la. mais noppil parce que attends koo ñaanalul rek mu yéene woo ko àjjana quoi. Mm. te koo yéenewul àjjana rek. te àjjana kenn mooy safara moo ko yéene. yàlla de yàlla de safara moom su waay mm. la fa boo xamoon la fa nekk doo ko yéene kenn. Mm. parce que dafa éternel. et puis xamuñ sax fa la ñu mujj. dafa éternel. te àdduna dafa doy waar. donc kon moo tax ni ak lu mën a am ah, juge bi nag vraiment yàlla ko yàlla yërëm mais après benn instant ñun dañu leen posé la question ndax Sénégal benn juge da ka fi ne yi mu tëb yëpp. Mm. c'est-à-dire loolu daf ñu jaaxaloon quoi Imam Ndaw Khalifa Sall. Mm. Moïse Sorantino. Euh, Karim Wade c'est-à-dire ñëpp léegi te lépp à ñu fekk ko këram quatre heures du matin wàcce fa contenant gendarmerie di tuur saako ceeb bi takkal ko mu xale yi di jooy plus de deux cent jeunes ay xale yu ndaw yu jàng alxuraan njabootam ca waraw nga takkal ko ay mënat yóbbu ko yàlla moo tax dafa jara ñaanal juge bi dafa man moo tax man mu tiital ko te man billaahi wallaahi du question li ma toog ci problème man maa ngi koy ñaanal te dama koy ñaanal yàlla yërëm ko parce que aussi amul luy lu àdduna lu fi jar nga yéene nit yàlla wan ko ginnaaw mm-hmm. yàlla ku mu woon dafa loolu dafa éternel